asalaamaaleykum mbokk yi Ablaye Cissé ma fas yéene waxtaan ak yéen ci lu gàtt rekk njëkkee ko jël kàddu nuyoo teg ko ci loxo sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des mourides yàlla na fi yàgg te dafa di fan yi coow dafa jip ñu roccee kàddu ñu ne ci sama làmmiñ te muy kàddu yuy xajamal yoon wi wax dëgg fi yàlla métier bi day ñaar fukki at ak lu teg ñu ngi ci kenn mësuñoo bàkkee wax ju ñaaw kenn mësuñoo bàkkee wax ju bon kenn mësuñoo bàkkee wax ju ñagas rawatina wax ju yàq yoon wi ndax ñun ñu cosaanoo mbuur nga xam ne sëriñ Saaliw Mbàkke yàlla na yàlla yokk ay leeram moo ñu xiir ci yoon wi taas ñu ci daf ñu daan jàngalit loo xam ne sëriñ bu mag bi mool na ko irham jamial wara ba tax na ñi ci nekk di tëkku li ci wax wax ju ñaaw baal nañ ñëpp àq wax ji jarul a guddal ndax bu ñu yëkkatee kàddu yi yuy yàq yoon wi teg ko ci suñu der kersa dafay daal di dugg si ba tax na ñuy yëkkatiwaat kàddu yu tuub teg ko ci keppaaru sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général kullu murit yàlla na fi yàgg téwér sëriñ bi ñu ngi laa ziyaar bu baax di ziyaar njaboot gi yëpp jërëjëf